asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum Sénégal Boubacar Jarale ci kàddu gi j'aime mon pays gàcce ngalaama UCG waaye gàcce ngalaama emploi yu nga xamante ne ñoo nekk UCG gëm seen bopp nekk ci ndaw réew mi góor ak jigéen am jom ba nekk ci dëkk bi bokk si employé UCG yi di bale mbedd bi di jàppale nit ñi ci wàllum ceeb gàcce ngalaama ndaw ñoon góor ak jigéen mag ak ndaw ñun da askan bi dañaa bëgg si ñoom ndax wàllum cet ku la siy jàppale rek moo ngi jàppale si sa dund bu neex kon yéen ñu nga xamante ne dangeen a nekk ay ndaw am engagement nekk seen biir réew mii di senegal gëm ko di daan seen doole seen ñàkk di dal seen tënni ngeen ko yóbbul seen njaboot si bale mbedd yi fu ñu leen soxlaa ngeen taxaw si seetal dëkk bi jaaraama waa ICG. yéen kilifa yi nekk ICG man Boubacar Diarra J'aime le pays maa ngi sàkku si yéen ngeen gën a dooleel ndaw ñu nekk si ICG di daan seen doole ndax suñuy wut jom ay borom jom lañu suñuy wut ku gëm sa réew ñooñu dañaa gëm réew mi suñuy wut gor dëgg ñooñu ay gor lañu. ndax gor bu nga xamante ne da ngaa gëm sa bopp gëm sa réew yor sa bale yor sa brouette yor sa peel nekk di setal dëkk bi ngir askan bi nekk si jàmm kooku amul fayam jërëjëf ndaw yu nekk UCG man Boubacar jara j'aime le pays maa ngi nii tey seen biir service xoolal set yu fi nekk et pourtant suñu balee fii lañ koy àndi ñëw dew def ko si dépôt bi oto bi ñëw jël ko yóbbu ko cet gu fi am rek moo lay wane dëkk bi set na ndax dañu doon def su tawoon dëkk bi lépp lu fi mbalit day dugg si foos yi buuse ko mais dëpp bañ fi nekkee ba léegi amuñu benn problème ndox mu ñëw ànd ak law bi dem gàcce ngalaama UCG yéen ndaw ñi si nekk di jigéen jërë ngeen jëf